gars yi tàccu leen champion yi ñu dugg s'il vous plaît eh ñëw nañu. c'est le box de de Galactic comme ni ko bâche bi wone donc Galactic euh, sans Birame Ndiémé la ñoo ngi ko jëndoon ci Moussa Yade bi muy am 3 mois juste. donc depuis trois mois ba léegi sunu sunu sunu pêche la nekk Galantique moom moo gagné woon concours espoir bu 2016 donc euh, génn ci premier foofu fa man génn en fait génnoon ci troisième donc euh, mu ñu satisfaction di defal ay production bu baax daanaka euh, il nous fait de très bonne production. am na jeune mâle boo xamante ni moom luy samp pour remplacer ko muy Everest donc moom nag malheureusement ñëwul parce que juste avant ñuy ñëw ci foire bi dafa dafa foq euh, ñeent donc loolu tax ñëw woon mais normalement on avait déjà préparé pour mu dugg ci concours espoir bi. ñu gis ne tey concours grand mâle bi dëgmal na ñu gis ay rumeurs yoo xam ne ñu nga doon gis ci Facebook bee galactique du dugg est ce que nga ñu cee leeral ñu am ko exclusivité ci ci euh, télévision la waaw bon loolu jot naa ko leeral ba pare ci ci réseaux sociaux bon xam naa ne aussi comme que Galactic bon il a fait l' attraction te y a des moutons yoo xamante ni bon ay concurrents am lañ donc naturellement bon y a eu euh, y a eu de l'intox donc diffuser une fausse information te te vraiment loolu euh, jàpp naa ni yàq lu mu au contraire dafa gën a yokk suñu communication yooyu gën a yokk bés bi donc euh, boo ku ñëw da ngay bëgg a xool Galactic lu tax. gars yi dem ba bëgg ko disqualifié ba bëgg ko génne noonu ci compétition bi donc finalement ñun la gën a porté euh, avantage sax que ñi nga xam ne ñu ñëw affaire ñu wëpp woon gënee gënee nu ñuy wax yàlla rek a xam ndeysaan sa si boobu lii rafet na tàccu leen lii waay lii rafet na waay lii

Xaadim lan nga yëg tey ci résultat bi nga xam ne Galactic indil na waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen eh, di sant eh, mbooloo mi yëpp eh, li ñu nag xanaa dañuy sant yàlla sunu borom ci ndam bi ñu may. Euh, li ñu yëg nag euh, daanaka mënuñu ko wax ndaxte dafa yàgg liggéey bi yàgg na te daj nañ ci ay coono yu bëri bare bëri waaye xanaa rek euh, li ma mën a wax moo de kontaan nañu trop li ñu yëg nag wax dëgg yàlla sunu làmmiñ mënees koo firi ndaxte dafa dafa doon lu am doole loo xamante ni suñu xol daal sedd na bu baax a baax a baax. macha ñu gis catégorie yi nga xam ne ñoom la ñuy dugal fi yëpp. mun nañ ne présenté wu ngeen si indi tey yëpp soo xoolee seen ay produits mooy yëg podium Khadim liggéey boobu maanaam lan ngeen ci mën a wax ak nan nga ko préparé. waaw liggéey boobu du liggéeyu benn fan du liggéeyu une semaine du liggéeyu benn weer liggéeyu at la ànd kook sama sama xarit sama associé Khadim Thiam di ko félicité tamit moom tamit jàpp na bu baax ci liggéey bi maanaam moom di ko ànd nekk na liggéey boo xamante ni wax dëgg yàlla eh, liggéeyu bu professionnel la ñu teg ko ci tey ci xarañ ci xam-xam teg ko tamit ci waxtaan maanaam moom du ñu mës a réeroo ci waxtaan mu teg ko tamit ci li gën a am solo mooy ñu booloo sunu ay doole basé ko ci confiance ci kóolute ak ci wóolute loolu daal moo indi liggéey bi yëpp tey nga xam ni catégorie bu ci nekk presque am nañ fa représentant waaw bu yëg ba jëm. macha allah Xaadim ñu gis ni saladam bi passé Galactique dafa ñëwoon Espoir euh, jël première ren mu ñëw confirmé ko. jël premier ci grand mal est-ce que am na loo xam ne yéen a ngi koy samp pour déwén salon Adam yi di ñëw ngir ndam li gën di wéy ci kanam. waaw suñu liggéey bi ñu tàmbalee nag du liggéey pour benn concours wala pour benn salon donc daanaka liggéey moom su jaaree yoon rek daanaka ci événement yi ñëwaat di leen ci ràññeeku bu baax a baax a baax ndaxte liggéey la boo xamante ne nekkul rek pour benn salon ndaxte ni ñu appréhender liggéey bi doon na loo xamante ne. Donc euh, je pense que di si les années à venir, BDK, il va falloir nous compter euh, BDK dans le cadre de l'amélioration des moutons, mais surtout dans la cadre de la professionnalisation euh, des bergeries. waaw jërëjëf Khadim xam naa dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo puisque temps bi mayu la ko lan ngay tàggatoo fii ci télévision bi nga xam mooy télévision Ladoum TV lan nga di kontaan loolu ci chaîne de télé bi xam ne léegi Ladoum yi am na nañu seen chaîne de télé xanaa ngeen gërgul rek ba mu gën a yaatu ba mu ba éleveurs gis ci seen bopp bañ a am xaj ak seen euh, mu bañ a bañ a nekk euh, télévision wu clan ak élevage dafa yaatu xam ne ku am xar ak ku amul xar mi ci la bokk waaw donc loolu daal la leen di dénk di leen sant leen gërëm waxoon naa la lu ma wax xarit kii xoolal leen ma xarit kii waxoon naa la bokkul ak ñoom te leen li ma la boole wax dëgg la ñu la wax dëgg la ñu la wax dëgg la.